ndaje tey bi di wax na ndaje tey bi dafa bokk ci ndaje yoo xamante ne alxames bu jot bu ngeen ñëwee fii siège bi di ngeen fekk alliance pour la république ci wàllu cadre yi ñu toog di waxtaan. waxtaan bi nag de temps en temps dañu indee expert pour yenn question yoo xamante ne war nañ ci waxtaan ñoom ñu indi ci seen xalaat tey nag ñaari expert yu mag ñoo ñëw maître Pape ak maître Sey ñu ñëw waxtaan ak ñun si ñaari question yoo xamante ne wax dëgg yàlla temps yi question yooyu ñoo nekk si actualité bi mooy arrêt wu cour justice CEDEAO ak fichier électoral bi xamante ne ñu ngi koy laam-laamee si biir processus électoral bi pour gàttal rek tënk si ñaari question yooyu bu ñu leen dëggee experts yi wax nañ ñu ne cour bi li ñu wax xalaat ko si mbàllu parrainage fii si Sénégal nekk na loo xamante ne génn seen i compétence waruñ si addu loolu lu leeral nañ ko sur la base de preuve beneen élément bi aussi mooy que ne mais cour bi mënul wuute souveraineté nationale du Sénégal mënuñ nañu Sénégal yéen li ngeen bëgg suñu constitution teg ko suñuy loi teg ko suñuy juridiction yi validé ko ñoom ñu ñëw nañu loolu yëpp da ngeen koy jël sànni ko loolu cour bi amul compétence boobu te Sénégal du jaay souveraineté am souveraineté am daf ko teg mu nekk loo xamante ne daf ko fonk beneen élément bi am solo mooy effectivement fichier électoral bi ak processus électoral bi bi xamante ne tey opposition bi ñu ngi koy ŋàññ li ñu mën a wax mooy que ne opposition bi li ñu def ci dialogue politique bi ci wàllu teg dispositif boo xamante ne dañ ciy tënk élection yi ñëw lépp ñoom dañ ko nangu bu ñu nangoo lépp li ñu def lépp dañ ko tënk ci seen coobare ñoom ak ci seen nangu ñoom ñu ñëw ba fin bi xamante ne vraiment lem mbir yi pour wax ko waxtaane ko pour pare moo des ñu génn ne ñoom loolu yëpp ànduñu si loolu dafa doy waar li ñu mën a jàpp rek mooy que ne ñi def auditu fichier li ñu tënk mooy que ne fichier bi fichier bu qualité la fichier bu baax la mais li ñu tënk tam dañu ne liy organiser élection yi wàllu institution muy direction générale des élections amuñu dara wuñ leen di ŋàññi bon nag bu fekkente ne ñiy organiser ŋàññuñu leen te li ñuy organiser muy fichier bi lu baax la wax dëgg yàlla amatul wax bon nag opposition bi peut dañu am yeneen préoccupation ndax dañoo jëkk li ñu wax nag mooy que ne ñun en tant que mouvance présidentielle en tant que coalition benn Bokk Yaakaar dialogue politique boobu ñi ngi si woon mais d'ailleurs fichier bi base bi ñu ko defee maître wax na si exposé ne communes yi ñu tànn yëpp visité ko pour def si audit bi ñoom opposition bi ñoom ñoo ko tànn pare résultat bi génn ñu lu ñoom nanguñu ko loolu vraiment doy na waar maa ngi demandé Sénégalais yi ñu xool bu baax mauvaise foi ou bon foi wu ñi xamante ne ñoom ñoo jël position. ci wàllu recours yi ndax di ngeen li ma si mën a wax rek gàttal mooy que ne Sénégal réew mu majeur la réew mu am souveraineté am réew la boo xamante ne li mu tënk si constitution li mu tënk si ay loi am li ay juridiction am di doxal loolu lay doxal kenn du joge bitim réew di ko dicté li mu war a def wala li